salaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz ñu ngi di ziar eh, di ñaan suñu yow bi fekkal si jàmm jégalu si gëj a déggante bi macha allah tey déglu nañ bayaan bi juma waaw ñun mais daa am benn laaj bu ñu bëggoon a laaj xam nga comme suñu mbokk immigré des fois dinañ am soxna dem Europe bëgg am ay kayit ñu ne dañuy takk ku fa dëkk te xam nga tubaab yi ñoom xamuñu. polygame monogame lañ xam léegi nag la plupart du temps ñoom dañuy ñëw ut benn certificat de divorce ñu dem ci maire yi wala ñu dem ci euh, niñ koy waxee euh, tribunal ñu defal leen certificat de divorce fasew ñu seen jabar mais si kayit gi loo la kayit bi di wax pour ñu mën a yóbbu kayit boobu foofu mën a takk beneen soxna bu dëkk foofu pour mën a am ay kayit ñu doon laaj exactement situation yow boobu noonu nan la ko diine gisi xam naa ne ñu ngi la ciy déglu daal incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki daara ji maa ngi leen di nuyu di leen ziara laaj bi fi jaaroon di masalatun fiqhiya mbokk ma doon laaj way dencante yooyu bëgg këyit yóbbee leen ñu wut këyit guy wane ne fase nañ soxna si amoon fii atteb charia islamiya ci loolu atteb charia la mbokk mi di laaj am na nag ñu ci joxe seen xalaat na ci ak fit wu dëgër joxe ci seen xalaat bu baax a baax ginnaaw gi Serigne kër Diallo eh, indi na ay leeral di leeral mbir ma nan lay demee maa ngi doon bëgg a teg sama baaraam ci ndégg tam loolu waaye daf ma réer Euh, tontu liñ ci tontu woon nag ginnaaw gi am na kàddu yi ci toppaat am ñu jàpp na xëy na dañoo xamut dëgg-dëgg mbir ma nam deme ak laaj bi nam war a leere dafa leeru ci ñun te aha kay mbir mi leer na nañ ci ñun laaj bi lii balañ cee wax dara ci groupe bi man dama ko delloo ca borom Serigne Ibrahima Ndiaye mi fi dugaloon mu delloo ko ca aji laaj ja laaj ko procédure ak mbir ma nan lay doxee dëgg-dëgg nan lay demee mu leeral mu mel ni ñuy def loolu léeg-léeg dañ koy soxlawoo def ca réew yooyu ñu nekk léeg-léeg ñu soxlawoo kayit gi ci réew mi ñu jógee lu ci nekk rek leeral na ko laaj ba lañ cee wax lu leer lu ñu leer nañ ñi lañ tiim di ci wax ndax delloo nañ ko ci borom di ko leeraluwaat ba mu leeral ñu dëgg dëgg mbir mën na muy demee waaw loolu nag ci charia islamiya waxuma ci wax sa xalaat waaye ci charia islamiya fase la mu dog moo xam ne fay li mënut caa am ndax bu dee ca réew ma la nga xam ne ñaari way dencante dañuy bokk toog bokk signé tasug sëy ba bu dee ci réew mi comme réewum lijjante gi làqati la waaja léeg-léeg mën naa mën naa yebal awoka avocat wala UG ñoo xam ne seen liggéey ci loolu la jëm mu wuutu ko taw kiil ko kooku doxal ko ci mbir yi ba wutal ko kayit bi ak lu mën a xew rek xaddiyatu ziwaaj bu demee ca àttekat wane na ñaari way dencante yi seenu diggante dañ na àttekat bi euh, bind yaxal yaxal këyit guy firndeel loolu waaw te ñi ciy wax it waroon nañoo gëstu ba xam euh, naka la àttekat yi di defaree shahada muy certificat wala këyit guy wane ne ñii way dencante lañ ak naka la ñuy defalee defaree kayit bi war ne sëy tas na fii yooyu yëpp war nañ ko gën a leerlu danañ gën a xam ndax lii sëy bu tas wala tasul wala kullin attikat bu xaddiyaat kii dafa soxloo kayit bi war ne moo borom moo soxnaam dañoo tàqali ko nga xam ne faw dana bind ci kayit ga ñaari way dencante yi ak kañ lañ dencante woon sax ak sey bi ndax doom sosu na ji wala déet ak kañ la takliko ni ak lu jëm ci mbir yooyu nga xam ne mënu caa ñàkk loolu ci gàttal rek fase la mu dog moo xam ne fay li mënu caa am ndax sëy la bu tasee ca tribunal ba ca kanam attikat ba moo xam boroma teew di ko fàggul boppam wala boroma tawkil babul wakala wakaala jàngalekat dañ ko jàngale bu baax a nit ki yu bari yu mën a defal boppam jaayis la mu tawkiil keneen ku ko defal ba ci xuloo ku ku mer war a xuloo ji sax day léeg-léeg man ngaa wutal ku la xuloowal moo xam da daa coobarewu di la xuloowal ngir yàlla rek wala da koy fay ngir mu xuloowal la lu jëm ci façon wut kayit bu koy firndeel nit ki ni mu ko mën a defalee boppam la man a taw tawkiilee keneen kooko wuutu ko ca defal ko ko war na nga bàyyi xel it ne buumub sëy du la woyof alquran da koo tuddee misaaqan xaliza turu misaaq rek doy na ngir wane ak dëgëraayam ak réyam rawat na borom bi teg teg ci xaliza moo tax du lu ñuy fooyee loo xam ne yi taxaw rek sawaay wane ne moom wàcc na soxna sa ñu firndeelal ko loolu ci ay kayit ku koy firndeel àttikat ba mu def ci poosam dem ne waaw léegi d'accord li wax li ma wax du dëgg waaye sëy bi tasul wat déedéet mbir yi doxewul noonu mbir yi ni muy doxee mooy am fase fate bàyyeekoo ci boroom kër gi ci teyu bakkanam ànd ak xelam jonteeg fase mi wala mu tawkil keneen ku ko defal ba àttekat yaxal loolu loolu sëy la bu dog boo xam ne buñ bëggantee waat ñoom ñaar fayli ak waxtaan mënu caa am takkiwaat rek fam jaaroon bañ may ko woon na fa jaariwaat takkiwaat te xam ne bu mu sëy ba moom dog na ko dog na ko ci coobareem doonte waa ji jàkkaarloowul ak soxna si ne ko fase naa la demul ca ay gorom ne leen fase naa seenug njaboot bi waaye ca kanam àttekat la dem dëggal fa am faseem ñu wutal ko kayit gu way firndeel loolu dëgg-dëgg sëy la bu dog asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa nag bu ñu amoon ci groupe bi ku xam-xamam màcc ci yoonu réew mi ni muy doxee mu leeralal ñu àttekat yi bu ñuy bind euh, shahadatu ziwaaj kayit guy firndeel ne ñaar ñi way dencante lañ wala shahadatu talaaq kayit guy firndeel na ñaar ñi seenub sëy tas naka lañ koy bindee buñ ci mënee indil benn benn misaal benn namusaj war ñu ko leeralal ñu ko bu baax a baax euh, dëgg-dëgg gën a gën a leer ci ñim yitteel ñëpp ñu xam loolu ndax sëy la bu tas ku ko lijjanti ci ay tappaleeg wax lu dul dëgg ba am ko ndax sëy bu tas la wala wala wala wala du sëy bu tas asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji waxul jaa alxaq maa ngi nuyuwaat di siyaara waa daara ji yëpp di sant Cheikh Mouhamadul Bousayri ak sëriñ Jibril ci laaj ak tontu yu am solo yi ak leeral yi mënta ñàkk ci masala mi fi gaaroon fa tabaarakallaahu laal nañ tomb bi ci wet yu wuute ñaari tomb rek laa bëgg ñëwaat benn bi mooy xadis bi nga xam ne imaam indi na ko ci biir waxtaan wi xadis bi ñëw na ci buxaari ak muslim ak yeneen téere xadis yi waaye ci ay alfaaz yu wuute ànd ak alfaaz yooyu yëpp baatu muraaja da ciy feeñ boo xoolee nasu bi ñu indi fii li fi ñëw mooy li yuraa jaxa li yuraa jaxa fayli am na ci yeneen labb murhu fal yuraa jaxa wala fa amarahu an yuraa jaxaha fa amarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa an yuraa waaye baat yu wuuti yëpp rek yaa ngi gis ne baatu fayli mi ngi ciy feeñ te fayli kañ lay am mooy bu fase amee bu fase tabbee xam nga bu jafe-jafe gaaree ci diggante ñaari way dencante te fase amul góor ga buñ koy digal dañ naan ko am sik alayka zawjak la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax euh, sayiduna zayd ibnu xaarisa am sik alayka zawjak danay feeñit ci xadis ba ci xadis bi sax feeñ na ci waaw imsaak feeñ ci yeewu alxuraan ba fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ixsaan waaw parce que booba buumu sëy baa nga fa imsaak lay doon waaye nag comme fase am na euh, dootul nekk imsaak muraaja lay doon moo tax dañuy jàpp ne li wax yi li ëpp ci borom xam-xam yi wax borom ñeenti ngir yi mooy ku fase ci ayaamul xay bi fase ba moom tàbbi na doonte def nga luñ tere nag Aku ku ko def ci tay mu wóor na so am saak ci jamono gis deret nga fasé ko yaangi def lu haram yaangi ngi jëf lu wuté ndigalu sharia kon yaangi def lu haram waye fasé mi mom tabina na tabé nak mo baaxul mota boko faylé bo fasé waté day doon ñaarelu fasé donte nak amna wax jo xam man dama japp ne wax ju woyef la ñu gëna ca ñako wax moy ibnu taymiyyah rahimahullah maanaam ku fase ci ayyaamul xaydi fase ma tàbbiwul waaye bu ñu xoolee yàqu hadis bi baatu muraajaxa rajxa kañ lay am mooy bu fase amee bu fekkoon fase ma tàbbiwul kon imsaak moo fay feeñ maanaam day téye soxnaam amma fase ma tàbbi na ñu fayli bu fase amul fayli mënta am te baatu fayli bi daa ànd ak yàqu hadis bi feeñ ci waxin yu bari ci ni hadis bi ñëwee waaw moo tax maa jàpp ne daal wax yi moom. lu ci gën a dëgër te borom ñeenti ngir yi wax ko lu dul wuute bu xaw a woyof liñ koy waxee jamono ju nekk wuuteeg borom xam-xam yi ci masala yi léeg-léeg ñaari wax wala ñett ya wala ñeente ya lépp day dëgër lu ci ne am firnde loo ci jàppit xam ne la ca des it lu dëgër la waaye léeg-léeg it nag day mel ni wax ja day dëgëreeg wet la ca des xaw a woyof lool man loolu laa jàpp ne moo am fii moo tax lii mbir tey mbir tey yeneen ak yeneen da cay toppaat sax nag sa dëgg-dëgg fase ma tàbbi na doonte def nga lu charia tere dañ lay digal ni ko yonent bi digle woon ibnu omar euh, bu dee dañuy dox ci lislaam ndax dañ lay forcé boo bañee nga fay li sa soxna aywa bu mbërëg ma jeexee euh, nga xam ne sañ ngaa fase nga nga door a fasewaat mu doon ñaareelu fase ñaareelu tomb bi ñaareelu tomb bi mooy sëy ba tase tribunal te fuqahaa yi yaxal ne day doon bay a soxra fayli du ca mën a am lu dul ñaari masala yooye ñu sette woon waaw moom imaam ñëw na ci ak leeral gu am solo gu mat a bàyyi xel gën naa yaatal masala mi ndax dafa am sëy bu tasee ca kër ga wala faneen dara yóbbu ko ci kanam àttikat lu dul wut kayit yu koy jëmmal ngir loolu la jamono laaj mu mel ni mel ni loola seede la cay doon loolu bokkul ci sëy yi nga xam ne day doon bay nuun a ndax tasewul ci loxol àttekat kon sëy bii nga xam ne àttekat tas na ko ci loxoom keroog ñu ngi wax sax ne bokk na ci lii wane xarañu sharia islaamiyya ci ay àtteem bu àttekat àttee ak li laaj fa muy jaar ak la muy jël ci waxtu ba def la muy def bu fay ligi mënoon a am euh, day mel ni kon euh, mbir ma liggéeyam day dem ci habaan mansura saa boo xamee ne noppi na ba génne dogalu àtte ba balaa ay minute bu leen ay ñu fayliwaat mbir ma delluwaat fam nekkoon waaw kon daal leeral gi ci imam def mu am solo lool mooy lu tasee faneen door a ñëw ci loxol àttekat mel ni daanaka àttekat seede la ci day firndeel rek waaye mbir ma faneen la xewee bokkewul ak lii tasee ci ay loxo fii nag mel na ni imaam da tënk ci xulxu bu xulxu amee ci ka ci loxol àttekat comme ni ngeen ko xamee xulxu bu dee ca attikat balaa ca kër ga moom fu mu amee rek bay nu na suxra la fay li mënta am waaye attikat bi léeg-léeg mën naa tas sëy bi ci lu dul xulxu xam xulxu la koy waral muy sëy boobu nga xam ne soxna si moo ci bëgg a génn te du ak jalgati wala tooñ yu ko borom kër gi tooñ du ay xàq yu mu ko war a jox te matalu ko du ak lot gum lott ci yor ko yu ni mel mom dal mo bëgg genn ci sey bi rek ci ciobarem wa bu waja bañe xulu atika sañ ko forcé ci xulu gi waaye xulu gogu bu amen fanen furul ak kanam atika dit kadalika nu mëna déme rek mom fayli munu ci am mu def nak bu atika tassé sey ci gënal anam gu bokk la xulu man naa am sey fitna xeexa xëccoo la ba digënté ba kontiné tax woratul kenn nag ñoom ñaar amatul sécurité ak yu mel noonu àttekat gis ne sëy bi daa war a dañ ngir bu dañul nanga man nanga mën naa xawi wala yu mel noonu fu mu fu mu taseeb daal nga xam ne àttekat bee ko tas moo xam ci xulon wala ci geneen anam dañuy jàpp ne loola euh, bay noona soxraa lay doon moom it fay li du ca mën a am waaw la ca am solo te mat a bay xel comme niñ ko waxee nag mooy loo xam ne faneen la tase te te faneen la tasee door a ñëw ci àttekat bi ngir mu dëggal ko ci ay këyit rek buñ delloo ca masala ma nag borom kër gi nekk bitim réew bëgg fee denc soxna waaye luwaay réew mi mayewuñ ko denc lu am lu ëpp benn soxna te moom ay këyitam këyit ya muy jëfandikoo ci réew ma am na luy firndeel ne moom boroom kër la am na soxna pour mu mën fee takkaat soxna faw mu indi kayit gu wane ne tàqalikoo na ak soxna si defe naa masla mi ak li ko tax foofu la cosaanoo foofu la bàyyi ko këyit googu nag bu ñëwee ci àttekat bi ci réew mi walla mu yebal ab avocat am mu doxal ko ci ba ñu yaxal ne moom tàqale ko nag soxna si mu mën a jël kayit googa dugal ko fa koy dugal ngir mën a am lam bëgg loolu comme ni ko imaam gën a leerale rek loolu sa dëgg-dëgg day doon sëy bu tas amma bu doon ko for aw tur ca mbedd ma rek indi kayit gi wane ne fase na diw mii te diw moomu sax mën naa am xamu ko du soxnaam loola loola taxul ñuy wax ala kulli xaalin daal ñu ngi sant ci leeral yi dollee ko waat te lépp di loo am solo di sant sëriñ Jibril ci jeqiwaat gi masala mi ba leeral yi gën a yaatu ñëpp mën cee jëriñu wasalaamaaleykum. ok imaam macha allah ñi ngi am mbégte lool nag ci ñëw gi imaam laaj bi mooy koo xam ne dafa nekk biti réew mu soxla foofu ay këyit wala mu soxla foofu beneen soxna ñu ne ko balaa ngaa am fii beneen soxna da nga indi këyit buy wax ne buy wane ne. mosoo amoo soxna fii nga toll nii te moom nag yor na soxna Sénégal léegi nag mu def ay maninam ba lijjanti kayit boo xam ne day wala ne mook soxnaam tàggoo nañu mu signé ko ak lépp indi kayit bi ci kanam tribunal ne mi nii luy wane ne fii ma toll nii aw ma soxna ñu ne ko kon euh, léegi man ngaa am soxna fii ñu may ko foofu beneen soxna ndax kayit boobu mu indi dafay taxaw taxawaayu fase kon day wone ne soxna am bobu na ko wala déet naka la l'islam jàngatee laaj bi ni barakallahu fiik cheikh jibril ñu lay ziaré bax wa jibril euh, walu fasé nga xamni moy fecci pas-pas halu aqdin fecci pas-pas léegi iska. Euh, comme ni nga ko waxee benn waay boo xam dafa dem bitim réew ñu ni ko dangay ngay indi luy wane ni yow kat amoo jabar fase nga sa jabar bu ko defee mu daal di indi ab këyit daal di fase naa sama jabar li may laaj foofu Jibril bala maa ñëw ci tontu léegi këyit bi mu indi ban tur xam nga këyit bi mu indi est-ce que da cee bind yow sama jabar diw fase naa la maanaam mu leer naa ñu mu signé ko wala daf indi turu keneen rek maanaam est-ce jabar ji ma nga fa fa ñuy fa ñuy signé ma nga fa la nekk fa dafa fals ab këyit rek daal di jël benn tuuru jigéen rek daal di sama jabar a nii mi ngi nii euh, si indi indi naa ko signé naa ko seen karam loolu nan lay ne këyit bi mu indi lan moo ci nekk loolu laa bëgg nga leeral ma ñu leeral ma këyit bi ci nekk turu jabaram moo ci nekk wala turu kana ci nekk te est-ce que ba muy ba muy jabaram a nga fa wala nekku fa te te ci ban condition la signé nee nga ma condition mooy ba mooy pour ñu may la jabar foofu da ngay fase pare léegi nan la bindee lam indi kay ndaxte fa mu koy indi di ko gaaral ñooñu xamuñu jabaram xamuñu jabaram nii la tudd xamuñu jabaram nii la tudd ndax dafa indi benn këyitam rek daal koy jox naa bi ni leen sama jabar a ngi nii fekk kooku du jabaram daal koy signé wala turu jabaram diw sama jabar diw fase naa ko daa di daa di daa di daal koy maanaam daa koy signé ñaar yooyu ban la ci léegi nga leeral ma foofu. ok imam macha allah <coughs> xam naa kon dañuy wax ci ñaari anam yëpp rek comme euh, laaj bi xamuñu fu mu jugee dañu jël ñaari anam yëpp benn bu fekkee ne kayit bi mu indi turu soxnaam moo ci nekk nga xam ne leer na nañ ñi turu soxnaam waaye nag soxna si yëgu moom moo dem lijjanti signé ba noppi signé ci place soxna si waaye nag soxna si yëgu ci waaye këyit beeg numéro yi ci nekk yëpp yu soxnaam la su boobaa nan la fase bi demee wala beneen anam gi dafa dem ci mbedd ma rek for turu jigéen rek ak jigéen bu mën a doon bind ci daal di ñaari place yëpp pour wala ne soxnaam moo signé léegi tamit bu fekkee loolu la noonu tamit naka lay demee Euh, beneen bi mooy euh, bu fekkee na nag turu soxnaam la ak papier soxnaam yëpp moo ne kayit bi muy wane ne fase na ko te soxna si yëgul est-ce loolu dina am fayli maanaam ndax mën na am fay li après wala déet jërëjëf Cheikh Jibril maanaam waa bu fekkente ni dafa indi këyit boo xam ni turu soxnaam moo ci nekk léegi daal di signé nga xam ne dafa signé bi kulli quwa aqlihi maanaam dafa dafa ànd ak xelam ak léppam kenn forcé wu ko ci coobareem ak léppam daal di signé daal di fase naa sama jabar par exemple euh, bind turu jabar ji signé ak lépp signé ko ca tribunal ca ca fa nga xam ne officiel fa ñuy signé kii léegi nag bu boobaa maanaam passé mi day tàbbi ci ci condition boobu mu def benn beneen nuqta boo xam ne boroom xam-xam dañ cee wuti mooy sa soxna boo ko fasee fekk boobu dafa nekk ci euh, maanaam fekk booba dafa nekk ci règle maanaam ci ngàntam parce que moomu donte borom xam-xam yi ci yëpp nee nañ day day day tabbi wante ñu ci baree baree baree bari nee nañ du tabbi te man wax jooji moom la mooy sama position ndaxte moom moo moo am dalilam ci alquran ak sunna maanaam bu fekkee ba muy ba muy fase soxnaam dafa ni fase naa sama soxna fekk jamono jooja soxna si dafa nekk ci ngànt mané ni ngantu loolu ñu bare bare ci fuqha yi nee nañu du manam fase mom du du du tàdd lu tax ndaxte da ko fassé ci ndax soxna do ko fassé mu nekk ci hayd yal nee ya yaa ayuha nabiy اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي فطلقوهن طاهرات من غير جماع min مفسر ياب loolu mufassirun yëpp léegi nag xawma soxna si ci fan la période la nekkoon mais bu dee mi ngi ci période ngàntam loolu borom xam-xam yi da ci am li gën a wér mooy ni passé mi du tàbbi ndax ba ko doom ba ko ibnu omar defee soxnaam yonente bi sallallahu alaihi wa sallam wax omar ni ko wax omar papaam ni ko waxal sa doom abdullah ibnu omar na jëlaat soxnaam mu bàyyi ba mu ba mu ba mu ba mu amaat beneen ngant bu nu ngant bi fekk boobu da ko da ko fasé ci fekk booba dafa am ngànt yonent ni ko ne ko jelat bam bu ko jelaté mu bayyi bamu amat benen beneen burul bi mu ko fase ba ngànt lola jeex bu ko defé nak bu ko defé nak nga xamni ne ci ceeg moom bu ko defé bu boba nak wa tilkal al iddatu allati amara allah biha an yutallaqa wa tilkal idda allati amara allah azza wa jalla an yutallaqa biha manam boo lol la yàlla digle ñu ñu fassé ci légui nak borom xam-xam ñu bëree bëri ñu ci borom xam-xam ngir maal dañu ñom dañu ni pasem bid'a dañu wax ni pasem bid'a parce que lu tax bid'a ndax ta yonent sallallahu alayhi wasallam xamul façon pase bi légui nak lolu sax yemul ci pasem bid'a dafa wuté wuuteeg alquranul karim moo tax pase moomu du ànd ci mukk ci ni day day day dina tàbbi bu fekkente ni soxna si amul ngant amul dara maanaam amul ngant amul dara waa ji bind euh, signé daal di fase naa sama soxna ak lu mu mënti dene bind na ko maanaam bind na ko te xam ne bi mu bind fa soxnaam la bindee lépp bu boobaa fase ma dafay bi maanaam lii mooy laaj bi léegi léegi lu tax ma ne amul ngant ndaxte comme moom comme ngant xilaaf am na ci bu fekkee ba nga koy fasee dafa am ngant boroom xam-xam yu bëree bëri nee nañ euh, pase mi du dog ndax yàlla subhanahu wa taala dafa ni fa talliquhunna li iddatihinna euh, ibnu umar tamit ba soxnaam euh, ba ba ba mu fasee soxnaam fekk boobu soxnaam ci soxna ci ngant la nekk yonent bi dafa ni umar papam ni ko nu ko jëlaat léegi ñi wax ni pase mi tàbbi na nee nañ tàbbi ndax xadis boobu Ibnu Omar passé ba mu passé loolu jàpp dañ ko maanaam fase bi tàbbi na waaye nag dañ koy jëlaat lu ndax ndaxte dafa def fase boo xam ni du passé bi yonent bi xam léegi nag dégginu xadis boobu moo tax wuute am ci almadahibul arbaa ñun ñëpp dañ ni passé bi day day tàbbi waaye waaye fuqaha yu bare bare bari rawat na almuasirun ñoom neen passé moom tàbbiwul waaye daal bu fekkente ni dafa indi benn kayit daat ci bind ni sama sama sama jabar diw bind ni fase na ko signé fase mi day daat bi bu fekkente nag dafa indi aw kayit rek bind ci ab tur du turu jabaram daan ni fase na ko loolu boobaa du dem fenn kayit woowu dañuy jàpp ni wax na lu jàpp ni wax na lu dul dëgg waaye jabaram day ko nekk jabar léegi nag waa ji lu mu ndax daa indi aw këyit rek indi teg wala bu fekkente ni suuru jabaram la mu fase ko benn fase lañ koy jàppe bu ko neexee mën na ko muraajawaat mën na ko muraajawaat ndaxte gisuma dalil buy buy wane ni mënu ko muraajawaat loolu gisuma ci dalilam lu dul bu fekkente ni dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo tàqali ko an tariqi an tariqi xulu li yàlla naan xulu maanaam summi koo ndax yàlla dafa ni fa in xiftum allaa yuqiima xududallah fala junaha alayhima fii maftarat bihi kon bu dee summi koo la moom kenn du ko mën a defaraat lu dul maanaam pas-pas bu bees wallahu aalam waaw kay imaam macha allah kon bu ñu déggee bu baax daal euh, su fekkee waa ji turu jabaram la andi signé ne fase na ko waaye nag jabaram yëgu ko mu ñëw tribunal indi kayit boobu tribunal bi xool xam ne kayit la buy wane ne nee na fase na jabaram kon fase moomu day tàbbi léegi bu fekkee ne nag beneen tur la ci def nag fase moomu du tàbbi fayib euh, beneen bi ci topp euh, beneen bi ci topp mooy wàllu fayle ji foofu dafa mel ni uutee nga fi ak oustaz Souleymane léegi euh, sëy boo xam ne dañ koo fase tribunal te boo xoolee waa lim li mu def mooy fase tribunal ndax dafa dem tribunal bi ñuy takkee sëy mu yóbbu fa papier buy wane ne fase na jabaram léegi ndax sëy bu ñu fase ci àttekat bu ñu demee ci qaadi tas sëy ndax fay li mën na amaat foofu wala déet maanaam sëy boo xam ne ci àtte ci àttekat bala tasee ndax mën na amaat fay li wala mënul amaat fay waaw Cheikh Jibril ñu ngi ziyaara maa ngi jégul dama doon julli euh, Jibril bu fekkente ni xam nga sëy boobu qaadi bi tasu ko ndax qaadi buy tas day fasxu sëy fasxu da koy fasxu tas day maanaam sëy bi cim da koy fasxu da koy yàq maanaam ñaar ñi xam ni euh, kii bëgg naa bàyyi kii bëgg ta bàyyi kii bëgg naa dem kii bëgg ta kii dafa bëgg a bàyyi kii lànk bi du ma la bàyyi bu boobaa tribunal moo koy jigéen ji dafa bëgg a dem dafa bëgg xulxu ku góor ki bañ mu bëgg xulxu ku góor ki bañ xaadi bi juge bi jël décision yàqal ko boppam ndaxte boobaa day yàqu ndax ku jéy daa bëgg a dem bu boobaa nag raja du ci mën a am parce que xulcu lay doon amma nag bu fekkente ni waa ji moom moo faseel bokk jabaram foofu foofu tribunal day day da koy seedeel rek lii wane loolu mooy bu neewoon ba ci tribunal ba ni leen sama jabar fasewu ma sëy bu sëy bu parce que kon léegi parce jabar gi moom la moo ko def waaye waaye du tribunal bee ko def maanaam du tribunal bi moo fase tribunal bi daf leen a seedeeloo ni fase naa ko mu jeex bu fekkee da koo seedeeloo te seedekaay ba nag te fa nga xam ne officiel la sëy bi day day day day daal di yàqu day daal tos sëy bi day tos waaye nag na jàpp jàpp na jàpp ni moom mooy ki fase bopp moom moo ko fase boppam nekkul ni jabar ji moo bañ waaye moom coobaree boppam moo ko fas kooku nag bu fekkente ni benn la ci jublu xawlan waaxidan day am day am rajaa bu baax tax sax boo boo xam ne ra laa rajaata fiihi mooy boo xam ne xa bi moo ko fasxu qaadi bi moo yàq sey bi parce que mënut la nekk xalaas intaha la nekk waaye ku góor ki moo ne ko fase naa sama jabar fase moom fase benn lañ koy jàppe fasem benn lay doon te bu booba raja da ci ñëwaat ndaxte la la raja dul ñëw ana dalil bi maanaam koo xam dafa fase jabaram benn fase la mooy la la mooy kii bi euh, euh, am na am na xadis boo xam ni am na xadisu waaye xadis boo xam ne yaakaar jëmul foofu parce que waa bi muy bi mu bi nekkul di kaf da koo def léegi nag mu def nit wa aw xëy niyya bu ci dogoo wala bu ci dogoo loolu sax am na ñoo xam ne bu ci dogowul sëy bu di dem waaye nag dogg bi li lii way ni na parce que da ko da ko da koo signé ci da da koo seedeeloo ci ñoo xam ne ñoom ñooy attekaay atte attekat yi loole ak dogg lay firi lu tax da koo defee ci place boo xam ni place at atte la mu tudd turu jabaram signé sëy bi day daal day daal day daal بيدا دي فسو وانت يقول بيدا دي ما نم البينونة الصغرى نيوغل دي طلاق رجعي يلا لا انت يعني بين نتجيب له طلاق رجعي يلا لتخ نقصد نقصد فسنا سما جبر لوخ مجيح نقصد باتو فسنا سما جبر أك نقصد لكم نوخ كبين لا بفكين سيري لوغو أيديك ñi nga ko war a seede loo signé ko maanaam benn lay doon bu boobaa qasami raj'iya lay doon lu dul bu fekkee ni qaadi bi moo ko defal bopp loolu boobaa nag day nekk fas fasu ndax day day nekk yàq maanaam xulcu ndaxte amul benn jëkkër boo xam ni am nga droit sa jabar daa bëgg a dem ko du ma doo dem ak kooku benn jëkkër amul droit moo tax yàlla jox leen solution daani fa in xiftum ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترض به دعني تلك حدود الله فلا تعتدوها والله أعلم waaw kay macha allah imaam kon côté boobu leer na bu fekkee waa ji dafa fase mais ñëw tribunal nag tribunal confirmé pour wane na fase na mais su fekkee nag ñoom ñaar dañoo xëccoo kenn lànk ne du bàyyi tribunal nag door a wañ loxoom fase ko loola mooy fase bi nga xam ne du am fay bi tayib léegi alquran day wax na euh, bu fekkee jëkkër ak jabar dañoo werante nañu oo kilifa ca mbokki ku góor ka ak kilifa ca mbokki ku jigéen ka ñoom ñaar ñooñu in yurida yuwaffiq yuwaffiqillahu baynahuma léegi nag fa in lam yurida islah bu fekkee kenn ki lànk nag keneen ki moom bëgg na islaa waaye keneen ki bañ na ba xarkam yooyu nga xam ne moom lañu oo ci ñaari boor yëpp ñu dëppoo pour fekk si ki lànk pour tas sëy bi waaye ke moom bëggut a fase am na ci daal ñoom ñaar koo xam ne moom bëggut a fase mais keneen ki doyal na léegi euh, foofu euh, ñaari ñooñu nga xam ne moom lañu indi pour ñu yëwanal ñu dëppoo pour tas sëy bi léegi foofu tamit ndax dina am fayli wala moom it dafay nekk loo xamante ni bii fayli mënut ci am. waaw Cheikh Jibril comme li nga laaj bi maanaam xam nga loolu mooy bu fekkente ne nag dañoo nekk ci ay jafe-jafe maanaam ci ñàkk déggoo yàlla dafa nag wa in xiftum shiqaaqa baynihima fab'asu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha léegi bu boobaa nag bu dee nag da ngeen maanaam bu dee nag ak tàqali koo nag ngeeni ragal ci diggante ñaari way denc yi bu leen bu leen tëb tàqali koo noonu nañ yëwanal nag kilifa ca ku góor ko kilifa ca ku jigéen ko ñoom ñan nan toog ñu waxtaan in yurida islahan yuwaffiq illahu baynahuma waaw léegi bu fekkente nag wax nañoo wax wax loolu ñaare buy am ku jigéen ki mooy kii bañ ndax ku góor ki bu nee bëggoo moom jërul toog di am moom bëgguma bëgguma jeex bu nee fas yéene affaire day tàbbi lu lu bari ci buy am loolu ku jigéen ki moo naan maa bañ léegi nag wax na ñoo wax wax papay ku góor papay ku jigéen ki wax na mu bañ papay ku góor ki wax naa ak boroom ku jigéen ki mu lànk bu boobaa nag yàlla nee na ah فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بوبا نغم يعني ولا تمسكون ولا تمسكوهن ضرارا تعتدون فكانت بلين تينك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تيبو باخ buy xam wala nag nga bàyyi ko bàyyi bu rafet a rafet mënut léegi nag bu fekkente ni gis nañu ni yéwén mën naa am yéwénoo juboo ñu toog waxtaan def alam yaam bu mënta nekk nag bu boobaa nag sa maanaam passé moomu nag kon ku góor si danaam ko nag léegi nag comme nag dangaa bëgg a dem ba dangaa bëgg a dem jox ma jox ma jox ma liñ fi li ma la joxa daxa joxaatoon mënu ko am lii laa joxut te loolu ñaare buy am bu ku góor ki bañee jàppal ne ku jigéen moom pare na pour jox ko ba tawee fu góor si bañ mbokk yi toog kilifa yi toog ku jigéen si lànk bi dafay def ñu ni ko nag nag liñ la joxoon delloo ko ndaxte Fatima doomu Abdullah ibnu Ubay kuntu kutubi Fatima saxaabiya la doomu Abdillahi ibnu Ubay dafa ñëw ci yonent bi kooku mooy soxnas Saabit ibn Qays ibn Shammas Saabit moom nga xam ne moo mooy moo génn ca معركة اليمامة لجي آه، فاطمة نيو تي يرنتي بنيو يا رسول الله قيس قيس آه، ثابت دي كو مانام رابروسيو موكو تي دار دي يال يدو موكو تي كو ام دينا دا كو ام تامت جيكو جو رفت لن واي خيلة كنام جي رفت آي غورة نك بين داو سي بغون تي كارم ثابت امو تي مودم بموتو كو مودو كو ديكو mu ni daal walakin nii akrahul kufra fi l islam maanaam may bañ mooy may def loo xam ni lu yàlla buggul la mooy lan mooy bañ ko jox àqam di ko di ko maltraité di ko doyadal di ko di ko di ko mooy ndigalam ci buñ nekkee lu mu ma bañ loolu dama ko loolu laay bañ léegi nag euh, ma bëgg li mun na ci ni saabit yonent bi wax ndaw si ni ko aturud ataruddiina alayhi xadiqatahu موني واو موني كو نعم يونس بن داني ثابت خذ الحديقة وطلق وطلقها تطليقة يونس صلى الله عليه وسلم وثابت نيكو نك فك يونس دفني دفن داو سي نيكو لام لا جوخون تول بامو لا جوخون اسكي بار nga pour joxat ko موني كو واو يونس بن ثابت جلل سا تول تانغا فاسا كو بن فاسا خلاص maanaam fase ko loolu loolu mooy xul alxulxu loolu summikoo la loolu summikoo la bu ñu waxtaanee ku jigéen ki bëgg a dem ñu def summikoo loolu boobaa moom rajaa du fi ma du mën a am ndaxte dafa summi ki maanaam su lépp amul amul idda idda boobu sax am na ñoo xam ne sax idda benn weer ngay def ndaxte jeex na xalaas intaha al amr maanaam bu fekkente ni da ngaa def xulxu te suba sa waaj génn àddina du la doon doo ko doo ko doon doo ko doon doo ko téy lu tax parce que amul xool jeex na xalas ndax da ngaa summeeku loolooy summikoo bokkul ak xaawu waa ji waa ji moom dafa def tawxee rek dafa def benn signature jabaram sax yëg ko ñu ne ko nag kon am nga ba se ndax tey da koo seedeloo eh, ñi nga xam ne al jihad rasmiya damay dawal oto nii damay ragal nag bu fekkente nii Euh, bruit bi ngeen baal ma ci euh, salaamaaleykum wallahu alam ok macha allah imam xam naa kon ñu am laaj bi rek te tëjee ko dafay aju ci euh, sa audio bi ci gannaaw nga xam ne <coughs> góor bi bu fekkee ne lànk na lànk na ne du fase nga xam ne jigéen gi sonn na ci sëy bi bëgg na cee génn góor gi lànk ne moom du ko bàyyi legi ndax man nañu o rek seeni kilifa ñom ñu tass ko wala ndax faaw dañuy dem ci qadi wala ndax man nañu dem ci jakk ñu ko maye won wala ñu wo imam wala borom dekk bi wala wala sey bobu dal ci ko mëna tass moy ci atté kay ba lañ koy tassé wala ndax man nañ ko tassé ci koñ bi wala déet su ko defee mu nekk laaj mu mujj bi insha barakallahu fiik jërëjëf cheikh jibril waaw Cheikh Jibril euh, comme li nga laaj nii Sénégal loo mooy seen problème da ngay naan papa ji tas na sëy bi wala sëy bi tas naa ko mu léegi yaay gis koo xam ne goro bi day day merloo papa ji mënu ko tas naa sëy bi loolu moom du du waxu dara kenn du ko considéré dara sëy nekkul ci loxo way jur yi de déedéet déggoon ñu am sëy la ko takk tasu ko sëy بن منك لو هو جي غورك او يعفو الذي بيده عقده النكاح وعلي بن ابي طالب في دكو فيري كو غورك لا خني موم سي لوخوم لا عقده النكاح بي نيك فاس فاس سي سي لوخوم لا نيك موي غورك لينا كو غورك باج لا بو بوبا نك اي لم كقاضي قاضي باغا خني مو في توغل الاسلام مانام في الشريعه الاسلاميه بو فكنت انك تي ريو مو خني ريو يفر waaye am na marakis islamiye yoo xam ni ma nga fa marakis islamiye di doxal sharia foofa loolee bu boobaa mën nañ faa def foofee ñoom parce que ñoom ñoo fa nekk waaye bu dee lu mel ne Sénégal gi tribunal bi am mën ngaa am tribunal ndaxte acte ndaxte tribunal boo demee def naa la dañ lay woo pour nga ni la kii kës mënatu la dem nga ne ko li ma joxoon li ma joxoon na ma ko joxaat mu joxaat la ko mu jeex waaye boo nee maaban gi kooku maaban gi moom tribunal dong dong dong qaadi bi alqaadi attakat bi dong moo ko mën moo ko mën a moo ko mën a dindi attakat bi rek moo tax euh, euh, Saabit ibn Qays ibn Shammas soxnaam ca na la rek demul ca papay Saabit demul ca papay Saabit demul ca papay boppam dafa dem ca yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa mooy àttekat am maa nag daj dajaloo di jàkk ñu daal wala papa ji ne maa ko def na loolu kalaam moom wax la joo xam ne amul ren nu dalil amu ci dara dara amu ci naa sëy bi teewul sëy ba day gën a dëgër loolu ay waxi caaxaan bu fekkente nag attekat bi nga xam ne mooy atte ci dëkk bi nag moom moo atte ni comme nag ku góor ki bañ na léegi nag dogal maanaam man dogal naa ni sëy bi tas naa ko bu boobaa nag foofu fay li amatu ci lu tax parce que xu day ne day nekk ala xukumil xulci xulcu moom mënut a ñàkk xulcu benn nga ñëw jël mu jeex wala ñu wala ñu forcé la parce que parce que parce que ndaxte nee naa la charia islamiya mayu droit ku góor ki mu naan ku jigéen ki duma la forcé بنسج منفوس بيقدر بقول ده بقدم ده بقدم خلاص جيحنا انتهى الامر يعني انت بالله هم صادقني فوق انك جلسة كده فقط jël jël jël jël yent bi néew néew ndaw si ñu ko da ngay toog ci amul amul amul benn góor boo xam ne am ku jigen ke nak ku ki moomu ko ku jigen ku jigen ci jaamu yalla la jaamu yalla la dafa am benn bag bu len bolé won mom ci bopam la dem بوبا يالنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأمسكوهن بمعروف أو صرخوهن بمعروف لكن بوبا كو غوركي كم نك إمساك بمعروف ملتان بس كو جين كي مين كوكو ببوبا نك بين فيسس موي تسريح بإحسان تسريح بإحسان نك الإسلام دا كوي فاسي كو غوركي ببوبا نك الإسلام جلل جلل جلل رسمان سابل جلل جلل رسمان سابل جل daa koy tasal boppam ndaxte ku jigéen ki jaamu jaamu yàlla la du jaamu du jaamu euh, jëkkër nekkul jaam kon nag amul droit buy toll ne da nga sëy mën a force déedéet wallahu aalam